voilà voilà. may ma pala. loolu dogal fii. may ma pala. dogal fii damay añ. waaw dafay yàq yaa bëgg te. maanaam donne moi pala. comme bi am na. waaw. indi kodo. kaa ji. bon lii boo fa dugal de dégg nga. non. ഒരു ഉള്ളി waaw ça va waaw mais yow complexe loxo ma waaye yow laa taxaw di la wax sa yu baax mais nag yow léegi dama lay ñaan bu fekkee ne moo la gënal àllarba lii ak àllarba bu la gënal. àllarba ma gënal lépp. waaw am solo. waaw waaw lan moo la gënal. di li ñu wax kii ak kii ak à sero. waaw dafa am solo. fifty thousand. thousand. fifty thousand nga tiinoo ak joxal saa fifty thousand muy vingt mille. waaw non léegi comme non damay bañ non damay bañ a sori. non non non damay bañ a sori. comme yow wax nga. dañuy dem ci liiru jaan. moom it mu compter. mais ci anglais nga koy wax. waaw soo compter pare nga wax. man wax wax na. oh way yow. tey de ñooñu Casamance. ceeb yàpp. ceebu yàpp bu am bëjëg ceebu ginaar bu am bëjëg jàpp ginaar ñoom bëre comédie am yow démb Matar Matar mooy ministre sport waaye Mame Boye Diao moo yor suuf si ay borom Kolda waaye Mame Boye Diao kenn du ma oh. keroog takku la ba la ma koy waxal ba tey ma ngay tege Mame Boye Diao man benn yoon rek man li ma gën a neex mooy Mame Boye Diao dafa civilisé non am na ñaar am na genre boo yoo xam ne mu daan déedéet mooy xam seen seen ñoo xoos ba pare mënuñoo wax mënut a ànd ak loolu. Oh, maam booy ñëpp la mën a ànd. non non non non non Samba maam booy Diaw su la bëggee daan na yow sa personnalité sa mbaax sa yaru sa te yow kenn yabu la. te jeex ko ful la. moo lambar lambar fekk. déedéet bugg ko. koy sonal keroog ba ma demee bureau kay maa ci xam dara. yow mi ay. toog eh, yow bi yoon booy ngeen dañu xool daal yu baax bu ñu ko ay jël combat bi. lan mooy moto. oto. waaw da ngeen xamoo ko. yow yaa xam sa boy bi. séeréer dafa xoos mënul wax. yow yaa xamoon du bii. BMG. laa la wax BMG. léegi léegi moom fu mu nekk de jeex na. jeex na léegi yéen ñaar yëpp a ngi BMG. waaw ah, man mii maa nekk BMG. non yéen ñaar yëpp a ngi. man mii maa nekk BMG. maa fi tudd kan. yow saytaane nga yow. yow gis nga sa boy bi. sama sama nabi sama frère. waaw waaw. BMG. waaw waaw def na man yow laa gëm man yow laa gëm léegi yëpp man man sa waay laa ah waaw boobu da ngay jéng loo jéng waa jéng danaa jéng danaa jéng ok man yéen ñaar ñëpp laa man ñëpp laa man ñëpp laa day la ñoom ñaar mën na dugg noonu jëm ñoom ñaar ay doomu day la kii moo tax wala ki daf kan moo tax baro doomu dayu Macky Sall mais nag ñor teewoon na nag déedéet kii war a jàkkaarloo ak ñoom jàkkaarloo ak Macky Sall Adama Baro doomu nday njool BMG kii kii doful de loolu yàlla ah? moo langa ah